ترين بنينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون جناو بني سنتي يلا جلي تيون انتبي سنت خادم الرسول نيوانجي يكتي سنو كادو موي كادو يشنت أك كادو ينجرم بسي جيتو mooy mboolem jullit yëpp. mooy mbooleem jullit yëpp. waaye nag ñu njëkk kaddu gi waaye nag ñu jé jiital gi ci sant sunu kilifa sëriñ Muntaxa Mbakke xalifa général kullu murit. ndax ànd ñu ak sëriñ bi. ndax ànd gi mu àndan ak sëriñ Sidi Muxtaar Mbakke. ci bi fi nekk. ci bi sëriñ bi di nekk. ak bi mu fi jógee. ak mu ni mu ko taxawoo. bu mat taxawaay bu mat sëkk la. bu ràññeeku lool. nee na loolu nag kon. ñoo ngi ko ciy sant bu baax. tuut nañ tuut nañ sant ko sax. nee na ñoom day tuut nañ ci sant ko sax. waaye nag ñu feeñal ci seen yéene rek. nee tam di ci teg Serigne Ahmadou Muxtaar Mbacke xalifa Cheikh Moustapha al Karim. mii sunu kilifa. di sunu wasila. nee na ñoo ngi koy sant bu baax. ànd ak Serigne ànd gi mu àndan ak sëriñ bi. ci liggéeyub sëriñ Touba bi. ba yàlla defee li ko soobit mu taxaw taxawaay bu rafet. mu taxaw taxawaay bu rafet. bu mat sëkk. bu mat sëkk. bu mat sëkk. ak bokki jullit yépp ak sant. nee na ñoo ngi sant. mboolem xeetu ummatu islaam yépp. mboolem bépp. mboolem doomu aadama yépp. mboolem doomu aadama yépp. ndax yëg ndax yëg nañu ni. suñu borom wàcc suñu borom wàccee dogal bi. yàlla subhaanahu wa taala wàccee dogal bi. te mu doon te mu doon doon lu ko soob. xawoon naa nee na xawoon naa di si ñoom lool. njabootu Cheikh Mouhamadou Mbacké. njabootu Cheikh Mouhamadou Amine Bara. ak njabootu maam maaram gépp ak njabootu maam maaram gépp. ak lislaam bépp. ak lislaam bépp. doomu aadama yépp waaye nag. waaye na ci. na ci. ñoom ñëpp. ñoom niñ ci taxawee. niñ ci taxawee. kenn ku nekk. kenn ku nekk. mënan koo jaal sa bopp. mënan koo jaal sa bopp. ndax liñ ko seq. ndax liñ ko seq. seq nañ taalibe. seq koog taalibe yi. seq koog euh, euh, bokk gi. seq koog bokk gi. seq koog islam bi. seq bi. ak xarit gi. ak xarit ak wëllëri gi. kon ku nekk. kon kenn ku nekk. mën na koo jaal sa bopp. mënan na koo jaal sa bopp. koy dalay wàcc rek. te koy dalay wàcc rek. ñoo ngi sant nee na ñoo ngi sant yàlla bu baax. bi ñëpp amee. bi ñëpp amee. yittey jóg. yittey jóg. Euh, dikk di ko siyaare si. di ko siyaare si. ñi mënta ñëw itam. ñi mënta ñëw xam nañu seen yéene. xam nañu seen yéene. mbooleem xeeti lislaam yëpp. mbooleem xeeti lislaam yëpp. mbooleem tariqa yëpp. yi nekk ci réew mi yëpp. yëpp ñoom ñëpp teew nañu fi. ak seenu coono. ak seenu coono. ak seenu naqar. ak seenu naqar. ak seeni ñaan. ak seeni ñaan. ñoo ngi sant bu baax a baax. na ñoo ngi sant bu baax a baax. yal na leen yàlla fayal. cant gi itam. cant gi itam. président Macky Sall. nee na cant gi itam fàtte wuñu président Macky Sall mi nga xamee ni ci loxoom la yàlla teg réew mi. moom itam ba mu ko déggee rek. la ñëw la ñëw. def ca la ko ca war. def ca la ko ca wax ca la ko ca war. mboolem mboolem mboolem gouvernement bi yëpp. mbooleem gouvernement bi yëpp li dalee ci kaw ba ci suuf. ñoo ngi sant ñëpp. ngi sant ñëpp. bu ñu tuddee président Macky Sall. a ñëpp a ngi ci biir. ndax ñëpp gis nañ leen. ndax ñëpp gis nañ leen. ñoo ngi leen di sëriñ bi nee na kon ñoo ngi leen di sant. Euh, di suñu mbokk yi euh, suñu mbokk yi bokkul nee na di dollee sant suñu mbokk yi nga xamee ni. réewum Sénégal lañu bokk waaye bokkuñu diine. ñoom itam seenu taxawaay mat na sëkk te rafet na. Euh, ñoom ñépp ñëw nañu. sëriñ bi daal nee na ñoo ngi sant ñépp. tey gërëm ñépp. tey gërëm ñépp. tey moom. tey xam ne sëriñ bi moom. Euh, dem na. dem na waaye dafa làqu rek. waaye dafa làqu rek. demul fenn. demul fenn. ndax mu ngi ndax ma ngi ci xoli bindeef yi. doolee sant yàlla itam. nee na di doolee sant yàlla itam. bi mu yóbbaalee seen ngërëm. bi mu yóbbaalee seen ngërëm. ndax jëf gi mu jëfal sëriñ Touba. ndax jëf gi mu jëfal sëriñ tubaa ñu bari da ko yéem. ñu bari da ko yéem. li mu yóbbaale ci yéene. li mu yóbbaale ci yéene. moo ëpp li mu moo ëpp li mu jëf. waaye fi jëf. waaye li mu fi jëf taalibe yi ñoo ko fi jëf kon yóbbaale na seen ngërëm nan dalal suñu xel bu baax la ca desit def na la ko war moom sëñ Sidi Muxtaar bàyyi na fi li ko war a tem ndax yoon wi mu tege woon dafa wér te mooy yoonu liggéeyal sëriñ Touba def boppam ab taalibe sàmm ngorom. sàmm ngorom. sàmm njullitam. sàmm njullitam. yarug njabootam. yarug njabootam. boole bindeef yëpp. boole bindeef yëpp. yoon wu nekkoon nag. yoon woowee mu nekkan. te muy yoonu jàmm. te muy yoonu jàmm. yéene ko ñëpp. yéene ko ñëpp. yéene ko ñëpp. yéene ko ñëpp. loolu mu bëggoon. loolee mu bëggoon. te awoon ca. te awoon ca. xàll ko. xàll ko. ba mu leer nañ. ba mu leer nañ. foo ko yéenee wàcc. di borom jàmm. jàmm. di borom sago. di borom sago. di sutura. di borom sutura. te bëgg doomu aadama. te bëgg doomu aadama. tàll tàll jox ñëpp loxo. jo tàllal loxo jox ñëpp loxo. yéen a mën ñëpp. yoon woowu mu awoon nag. yoon woowu mu awoon nag. yoon wu leer te muy yoon wu leer nañ. foofu nu ko yéenee wàcc. foofu nu ko yéenee wàcc. nuy ñaan ñi nga xam ne sañ xamee ni sañ nañu leen a digal. muy kër sëñ Baara gii. muy kër sëñ Baara gii. yoon wa sëñ bi xàlloon. yoon wa sëriñ bi xàlloon. te awoon ca. te awoon ca. ñu gis ko. ñu gis ko. mu mën na fuuf. mu mën ñu si fuuf. njëkk na ci fuuf. njëkkuñu si fuuf. te gisuñu lenn lu mu ko wàññi. te gisuñu lenn lu mu ko wàññi. xanaa lu mu koy jëriñ. xanaa lu mu koy jëriñ. di jëriñ bindeef yëpp. yoon woowee laa bëgg. ñu tege ca. bañ koo wàcc. man de fos nee fos yéene naa cee tege. ndax yéen ñii waa kër sëñ Baara. ndax yéen ñii waa kër sëñ Baara. di rak di di doom seen jaam maam rek. seen jaam jaamaar rek laa. kon na leen wóor ni. yoon woowee. ca la ñu fas yéene aw. bëgg itam ngeen aw ca. ndax kër gi. kenn xamu ko ci lu dul. liggéey jaamu yàlla jaamu yàlla jàpp seenu jàmbur jàpp seenu jàmbur loolu la ñu sëriñ bi yare woon ca la ñu nekkoon ca la ñu bàyyi te ñu ko yéenee wàcc la ca desit mbokki taalibe yépp mbokki taalibe yëpp ak mbokki jullit yi ñoo ngi leen di tàllal loxo na ko sëriñ bi tàllale woon ndax nit ndax nit la kook ndax nit la kook ak bëggam ak bëggam du fi jóg mukk bëgg jàmm rek bëgg jàmm rek bëgg ñëpp ànd bëgg ñëpp ànd yéeneente jàmm yéeneente nangoo liggéey nangoo liggéey sàmm seen ngor sàmm seen ngor ci loolu ci loolu la nekkoon ca la ñu fas yéenee nekk tey duñ ko wàcc mukk tey duñ ko wàcc mukk bëggateem di ko digal njaboot gi di ko digal njaboot gi ñu bokk ci aw ñun ñëpp di taalibe yi di bokk yi di xarit yi ndax loolu moo ñuy amal njëriñ fii. moo ñuy amal njariñ fii. moo ñuy amal njëriñ fële. moo ñuy amal njëriñ fële. ndax moom ma dem. ndax moom ma dem. xëy na xol bu feesee tuuru. xol bu feesee tuuru. bu feesee tuuru. moo waral ay rangoñ di moo waral ay rangoñ di waaye lañ cay jëriñ. waaye lañ cay jariñ mooy lam ñu batale woon. mooy lam ñu batale woon. bañ koo wàcc. ñu bañ koo wàcc. Uh, bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. dana ci am yiw moom. dana ci am yiw moom. ñu daan nañ ci am tuyaaba. baax nañ ci góorgóorlu bu baax. àndandoo nekk benn. àndandoo nekk benn. te nangoo liggéey. jàpp suñu jàmbur. jàpp suñu jàmbur. nopp ci lu suñu yoon nekkul. te yéeneente jàmm. te jàmm. ñoo ngi sant ñëpp. ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. rawatina. rawatina nag. Ah, suñu mbokk yi mu tuddoon léegi. suñu mbokk yi ñu léegi. muy bokki dëkkandoo yi. dëkkandoo yi. ak bokk yëpp. ñëpp rek dañoo bañ a lim di juum di fàtte waaye sant nañu ñëpp. lépp luy askanu maam maaram. lépp luy askanu maam maaram. ka ca jëkk ba ka ci mujj fii. lépp cant gi ñoo ko moom. cant gi ñoo ko moom. ñoom moo tax ñuy wax. ñoom ñoo tax ñuy wax. ndax ñoom la ñuy waxal. ndax ñoom la ñuy waxal. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. sant nañ ñëpp.